nan ko ko mbaga ngi lay takni tam bu dan Allez, complice Macky Sall, dictateur Macky Sall, dictateur Macky Sall, incapable Macky Sall est à bord. Macky Sall république. Macky Sall république. Macky Sall assassin. Macky Sall assassin. Libéré. Sonko. Libéré. Sonko. Libéré. Sonko. Libéré. Libéré. Libéré. waa Louga waa Thiès waa Dakar. waa Tambacounda Badji Bassène lii moo fi xewoon le 5 août 2023 ici à Ziguinchor libéré Sonko bougie du Tchad drapeau Sénégal di flotter ñuy gis sur la scène de l'aérobie l'international képp ku kontaan si vidéo bi liker aimer partager et surtout d'abonnement ngeen abonné bu baax a baax c'est la chaîne des patriotes les gars Voilà, libérez Sonko les gars. Likez s'il vous plaît. Lodja Zal depuis Fouladou salaamu aleykum à toi. voilà Bouzy yaa ngi ci kaw muy flotté ñuy gis les gars su commentaire yi s'il vous plaît libérez Sonko les gars Lat Diouf disquette disquette bonsoir à toi. voilà ñu ne Macky Sall incapable la les gars yéen ko dëggandoor voilà le les patriotes ils sont fiers voilà lazim am ñu seen fay am ñu seen fay les gars voilà ñu ne Macky na dem gars yi ñu ne bëgguñu la bëggatuñu la malgré six mois moo ne desee mais ñu ne nga dem jël ses bagages

kër Ousmane Sonko la ñuy dem dem siyaar yaayam won ko fra franchement pare naqar bi ñoo ko bokk ana waa Dakar ana waa Thiès ana waa Louga ana waa Diourbel ana waa Fatick ana 400000 personnes yu jëndoon suñu bracelet ana ngeen ana ñu doon wéyal Sonko soo ko laalee ana ngeen ana waa Yewwi di jaale famille yi nga xam ni seen doom yi daanu nañ ci euh, manifestation yi yàlla xaare leen arjana voilà ñu ne Macky dictateur la ñu ne assassin la ñoo ko dëggandoo gaa ñoo ko wax patriote yi Voilà, Degenen Kodou Pros, les gars, sur la scène de l'aérobie exclusivité. N'a connaît pas ta vidéo 10 fois. 10 fois, les gars. son corps. Ici à Sintabou Choro, les gars. Policier, Macky Sall reykatu nit. Macky Sall reykatu nit. policier reykatu nit. policier reykatu nit. armée incapable. armée incapable. armée incapable. armée incapable. armée sénégalais incapable. armée sénégalais incapable. Badji Bassène depuis Bordeaux yaa ak sa jëkkër salaamaaleykum yaa di Tamba borom Bordeaux di patriote dëggantaan jaay xarit Ousmane Sonko di bëggee sama yaay depuis ay États-Unis Fatoumata Boiro sama bajeen maa ngi lay siyaar Oulimata Tamba depuis New York City Pape Mané depuis Suède depuis Europe big up à toi voilà jege nañ ko du Sonko xale ñi ne Macky Sall incapable les gars si seen wulaay bi lañ ko waxee en exclusivité ñoo ngi HLM Néma de Ziguinchor likez likez likez Orange s'il vous plaît bàyyi leen ah, suñu connexion yi comme ça ñu mën a def live mën a dugal ay vidéo yi am qualité. ñoo ngi koñ koos voilà dañu contourner gars yi dafa am élément yi nga xam ni fee taxaw di xaar patriotes yi léegi ah, ñun dañu yor ay système dëkk bi ñoo ko moom suñu jakartamaan yaa ngi fii di suspecté di xool c'est pas facile une semaine ñuy raag Macky Sall assassin Macky Sall incapable Macky Likez s'il vous plaît les gars. Macky Sall, dictateur. Et vous êtes sur la scène de l'aérobie, l'Inter. Yoluma, yoluma. voilà jege nañu ko ñu kenn du waa Ziguinchor voilà Nairobi l'international ñoo ngi buntu kër Ousmane Sonko. ma